li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal min daari yaatal minna assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa bokk jëli ji bokki taalibe ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi Sëriñ Tuubaa ci kaw suuf ñuy ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ci kilifteefu rakkam di jëwriñam Serigne Sidi Mbacke Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moom la fi yabal mu teewal ko ci jataay bi jox ko kàddu gi mu wax ne nañ wax ci turam jot jotli kàddu yi sëriñ bi ak i cantam kon ci turu sëriñ bi président de la république Macky Sall sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu ak mboolem délégation bu mag bi nga àndal bépp di la dalal jàmm ci liggéey bu rëy bu am solo bii nuy dalaw tey muy Ila di autoroute bi lëkkale Touba ak Ndakaaru te sunu kilifa gu baax ga Cheikh Sidi Moukhtar tegoon xeer bi ba tey jii ci dogalu suñu borom Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëw ubbi ko ànd ak mboolem njabootu Serigne Touba gi di jéego bu am solo ci doxug réew mi waaye mu bokk ci li yombal sunu mission nun doomu adama ci kaw suuf mooy dundal ko waaye itam di dimbale di ñu dimbale ngir nu mën a taxaw ci ndigalu sunu borom li mu wax ne fantashiro fil ardi wabtaxu min fadlillah ak li mu wax ne fam famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi te mooy nu génn dox ci suuf si wër xéewali gëstu njariñ yi ngir jariñu ci ak jariñu ci muy loo xam ne ci jamonoy màggal dana wàññi bu baax coonoy nit ñi sëriñ bi nag kon mi ngi lay sant bu baax di la gërëm mi ngi sant bu baax itam mboolem njabootu Serigne Touba ci wuy si bi ñu ko wuy si di nuyu itam mboolem ñi nga xam ne seen maam ya Serigne Touba lañu àndaloon Serigne Touba tofal leen mbooloo Serigne bi neen mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm mboolem mbokk yi waaye di gërëm mboolem taalibe Serigne ci seen teewaay bu rafet di la sant bu baax nag di sant bu baax itam mboolem ñu doon liggéey ak di ci yëngatu ba liggéey bi mën a sotti ni mu sottee ci dëkk bu tedd bii nga xam ne Serigne Touba da koo sos ala ususin min a taqwa min allaahi muy gëm yàlla ak yaakaar ko ak xeeñtu ngërëmoom ba yàlla may ko fi mboolem li mu fi bëggoon lépp sëriñ tubaab bi mu sanc dëkk bi ay rab la fi fekkoon ak gott bu lëndëm këriis bi mu fiy dikk wut suuf fu mu bayee wóorut suuf maam waaye dara toxu foo ni ñëw lu dul dundal diine ak jaamu yàlla bañ koo boole dara Sëriñ Tuubaa daana wax ne li tax ma sanc dëkk bi mooy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit daana wax ne li tax ma fonk Tuubaa ak Daaru Salaam te duma leen yamale ak feneen mooy sama yéene ju sell ji ma am bi ma leen di sanc ñoo fi andi ngir dëbuwuma fi suuf maam am yàlla te def ko ci ndigalu yàlla aku tànnam sëriñ bi nag bi mu sañcee dëkk bi dafa ñaan suñu boroom ne ko nanga ma may Tuubaa mu mekk mu mel ne aljana wa wajaal ilaahi maskani tuuba abad mithla smiha bijaahi xayri man habat moo tax lépp lu nit di soxla ba dundam mën a jag mel na àjjana ci kaw suuf sëriñ tuuba ñaanoon na fi moo xam ci saahir walla wala baatin wa daara ixlaasin wa sidqin wa wara wa daara sunnatin wa man jan min bidaa ñaanoon na mu doon barabu xam-xam ak leer ak gindiku wa jaal binaa iya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi waj'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'al fikrati wa tafahumi ñaanoon na it yàlla def ko barabu xéwal ak wërsëgu lew ta dagan wa risqa hajal atibal xalaali fi l usri wal yusri ala tawali lu àdduna tartar ak lu mu jafe-jafe yàlla di leen defal wërsëgu yaatu telew ba faw ndax Sëriñ Tuubaa nee na yàlla defal na ko du yëg mukk naqari jamono du yëg day xos waaye nag lu mu gàtt gàtt nu fàttali ko tuuti ci wax Serigne daa waxoon ne dinaa leen ji danaa leen jàngal juróom benn mbir yee leen ci ñeenti tomb jàngale mu njëkk mi danaa xamal boroom xam-xam bi ak woroom xel yi loo xam ne ca dalil ak burhaan yu leer lay tegu loola mooy nit mënta génn ñett ñi njàccaar silmaxa ak ku gëlëm mu ne njàccaar daa war ji di jiitu di jiite tey wommate jëm ci yow njàccaar nag mooy ku mën a ràññee lu baax ak lu bon kooku nag moo mën a jariñu tey jariñe silmaxa daa war di topp ci ginnaaw njàccaar fu mu ko jëmee mu aw fa silmaxa nag mooy képp ku mënta ràññeel boppam li baax ak li bon waaye saa su nangoo wommatu ci ginnaaw njàccaar ci la tànni li baax bàyyi fi li bon kooku it kenn mënu koo tee jariñoo ki gëlëm nag daa war a laaj ña xam ñu wan ko yoonal bu ko nangoo nopp lu jariñoo nit nag na muy def ba jot ca la muy wut génn juróom ñi ki jug jëm ca la muy wut jaar ko ca yoon wa koy maye mel na kay dem ca jaba ngir yitte te yoru njëg la ak ki jug jëm ca jabar ngir yitte te yóbbaalewul njëg ak ki jum ki jug jëm ca jaba ngir yitte ngir yitteem te yóbbaalewul njëg dafa saa jot jaara ko ci randal ak ki jug jëm ca jaba te yóbbaalewu njëg naam waaye fas na fa daan dooleem ba jot ca la muy ak ki jug jëm ca jaba ngir di fa dagaan dong ak sàkku ku jëkk ki ak ku ñeenteel kenn mën leen a tee jot seeni ajo ku ñaareel ki ak ku ñetteel ki kenn mën leen a tax a àntu ci seeni ajo ku juróomeel ki nag bu dajeek ab tab aajo mën naa faju ba dajewul ak moom daal di soy ñaareelu njàngale bi ma ci xamal ñi am kilifa ne kilifa ku ko am dangaa war a def lim lay digal tey moytu lim lay tere loolu mooy warteefu njaboot ci kilifaam lay warteefu kilifa mooy di digle ak di tere bu ñu defee ñoom ñëpp ñu ànd jariñu bu ñu deful jaanam wàcc mu jariñu lay lore dal ci seen kaw ñetteelu njàngale bi ma ci xamal ñëpp ne ci digle lu baax ak tere lu bon ci la lépp yiw di juddoo adduna ak àllaaxira ci safaan bi ci la jëpp lor di juddoo ci àdduna alaaxira ñeenteelu njàngale mi ma ci xamal kilifa yi ne am yërmande ci njaboot gi moo gën ci ñoom di doxee safaan bi di xamal njaboot gi it ne topp seeni kilifa moo gën ci ñoom di doxee safaan bi juróomi juróomeelu njàngale mi ma ci xamal ñëpp ne ki sañ digle ak a tere mooy ki xam ne liy jariñe ak li di ko digle ràññee lu bon ak liy lor di ko tere waaye ku mënta ràññee lu baax ak lu bon luy jariñ ak luy doore kooku ndigalam ak i teram lu ne mën na ca juddoo juróom benn lu njàngale mi ma ci xamal ñëpp ne ki xam lii jariñe di ko digle xam lii loole di ko tere balaa am kilif nongulee li mu leen di labiré la ciy juddoo mooy yiw ak jàmm ak nofraay ñëpp tey ji ak ëllëg ñeenteel bi mooy ku jug ngir labiré ñi mu yilif war na ñoo rafet njort ci moom ndax ku yéene nit ñi aw yiw di leen ci laabiire wóoru ca jëru ca kooku lu mu la digal jàmm rek la lay jëmee kon topp ndigalam moo lay jural mucc ak jàmm ak afiya ñeenteel bi mooy nit ki lu baax la war di sàkko te sax ci jëm ca te di ci jëmale ñeneen ndax jëmee aw yu ci ci ñeneen lu baax doo nga ci juddoo kon maa ngi leen di dénk maa ngi leen di dénk ngeen sax ci yiw te di ko defal ñiiw ak ñu dul ñoom bu leen ko defee am aw yiw mucc ci safaan bi rikk nag bu leen dee xëccook ñi yor mbir yi kon ngeen am jàmm ak mucc ak noflaay te te ngeen moytoo def luy waral rëccu ak jooy ndax boroomam xel day téye boppam ba du dugg ci liy waral gàkk-gàkk ak i ndax ndax di dij boppam ci njariñ yu koy jëreel mbëtte mu sax bu faw moo tax waxi sëriñ tuubaa ji ñëpp ci war a bàyyi xel ndax ku ci tënku doo réer mukk te doo sànk mukk Serigne Touba nag suñ borom da may mu tabax aw xeetu nit ni suñ borom bëgg ab jullit mel ne mu indi ñu projet mach tudde ko mashruul fawsayni mu indi àdduna ak alaaxira moo tax Serigne Touba dafa dajeek contexte boo xam ne benn nitu yàlla dajewul ak moom ndax suñu borom dafa rocc ci loxo jullit yi doole yi àdduna ak mbootam teg ko ci loxo yéefar yi ngir xool la ñuy def ndax dañuy rafetal te delluwaat ci seen borom ak fi mu leen dëddal ñu war caa jaar wala dañuy jaar. fa yéefar yi ànd ak ñoom ba far sànku àdduna ak alaaxira moo tax Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee li mu def mooy woon nit ñi ci al iraadatu wal himma te mooy fexe ba yàlla gën a leen lépp ne ko alxuraan waxee qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ixwaanukum wa azwaajukum wa asiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuha wa tijaaratun taxsawna kasaadaha wa masaakinu tardawnaha ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihaadin fi sabilihi yu jihaadi fi sabili fa tarabbasu xatta yaati allahu bi amrihi ci noonu la Sëriñ Tuubaa yara ay taalibeem wax leen ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi diine ci diine ji ci la defare wenn xeetu nit wu bees woo xam ne kenn mësula la gis ñu mel ne ñoom ci bëgg yàlla ak pëstéef ak jikko ju rafet ak yar ak teggin ba mel ne saxaaba yi ñoo wàccaat ci pëstéef ak yitte ju kawe Sëriñ Tuubaa nag li tax mu am ndam ci liggéey bu rëy boobu mooy yetti mbir yi bu njëkk bi mooy ar ruuxaaniya ndax dafa fekk adduna jëm jug ci al madda te mooy gëm matériel ba fàtte yàlla mu jëlaat xolli yi nàmmaat leen jëme leen ci yàlla ilallaahi bil quraani wa sunnati allati hadatni saraftul kulla wal qalbu xaashi'un al waaqiyatu te mooy wàcc ba tolloog nit ñi woo leen ci lu dëppoog liy dund li ñu dund jagleel leen baax ak diine ba ñu mën koo dund te du leen soral xaatibu naasa ala qadri uqulihim walan yashhada diina ahadun illaa xalaba walan yashhada diina ahadun illaa xalaba moo tax moo daa woon nit ñi ci yërmaade yàlla ji leen xoole bëtu mbëggeel wa rahmati wasi'at kulla shay'in yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jamii al wara yaa haadiyan li radaa fexe ba musal leen ci doctrine al te mooy modernité fexe ba ñu mucc ci at tahrib te mooy occidentalisation bu ñu am complexe ci seen gëm-gëm ak seenu col ak seenu doxin dañu nuur li ñu doon te sëriñ bi wax na ne law tanassartu la daxatu naara wal iyaasu billahi taala looloo war a ñëpp maase dëgmal sëriñ Tuubaa xam ne mooy seen njëriñu àdduna alaaxira allahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri zanifin bi daradi ba ca topp mooy albasata albasatatu te mooy ñëpp koy mën a dund te du la sonal ñëpp ci mara jariñu amul kenn ku génn wa yastawi mubtadi'un wa muntahi fii nafyi wa xayruhu la yantahi teg leen ci ashratul mustaqim ba képp ku bëgg ku ko bëgg aju ci moom mu garanté la àjjana àddina ak laaxira te wax na ne lépp lu ma bind ni ma ko waxee ni la ko suñ borom dogale wa huwa lisi jaala ma katabtu kama katabtuhu wa ma kasabtu wax na ne sama lépp ak jaamu yàlla la wax na ni itam képp koo xam ne juyoo nga ak man suñu borom dana dana la alak li man lahu kulliyati ibada hamdi wa man xaalafani abada nee itam képp koo xam ne yaakaar na ma suñu borom teyal na sa bakkan ci àdduna ak alaaxira taabat nufuusu man taallaqu biha dunya wa uxra zaaka fadlu rabbiha nee na suñu borom jéggal na képp ko aju ci man yaakaar ma waxfir li walidayya waxfir li jamia man bii taallaqoo bi fadlin yaa samia nee na képp ko aju ci man ku ne yàlla suñu borom musal na li ci saytaane moo tax lépp lu fi yàqu rek yàqu bakkan la waa yàqu seytaane Sëriñ Tuubaa génn na ju najjayta man bi yataallaqu maa min ash-shayaatini fa sukur yasmaa nee na itam képp ku ko yaakaar dana tabbi àjjana kullu muridin bi yaluusu yasaadu wa innahu min al aza moo tax ca gànnaa dafa xëy bis wax sëriñ Aliou Sey ne ko Aliou wool fere yi ñu daje ba ñëpp daje mu ne li ma leen di doy de mooy suñu borom damaa xamal ne dana ko alluwi limal ma ci yéen yam Sénégal gumlim rek sëriñ bi na ko googu ba mu yàgg sëriñ bi na ko li ma ci jublu mooy suñu borom damaa xamal ne balaa nëgëni si dana danañu fekk ñu delluwaat Sénégal ci ak ci yéen loolu nag li ma jublu ci wax leen ko mooy damaa bëgg ngeen xam ne lépp lu ma leen dikk ni ngeen di gise lii ni ngeen di gise loolu daane fii moo ko waxee ba boobu nag ci kàttanu yàlla kenn du faatu boobu fekk na nag am na kenn ci taalibe yi koo xam ne dafa ba ñëpp di ko xaaroo yaakaar dee waaye suñ borom dafa def mu wér ba Serigne Touba dellusiwaat Sénégal ba ñëw ci Jolof mu door a kon nag Serigne Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ne Serigne Touba ñeenti mbir la ñu gisoon mu itteel ko benn bi mooy diggam ak yàlla diggam ak alxuraan diggam ak rasuulullahi ba ca res mooy dëkkam bii di Touba ñaanoon na suñ borom saxal fi kaaraange sol ko ci lépp luy musiba te lépp lu mu fi ñaan yàlla suñu defal na ko ndax moo wax ne. lahu wahabta maa kafal xutuba fa fa suqlahu fawqa rija fii Touba kon tey bu nu dajee fii di ubbi yoon wii di ilaa Touba te président Macky sal amal ko kon day dëggal ne la Serigne Touba waxoon ne rabbi stajib waltu kammil maa nawaytu ladaa Touba lati bikatum naa fii ko bu ñaana suñ borom dëggal na ko kon Serigne Touba nee na kon Serigne sëriñ bi nee na président mi ngi lay sant bu baax ci si ci sa yéene jure ji ci dëkkam bi. def nga ci li nga man ak li nga mënul ba yàlla sottal ko tey ndax lii kat kero ba ñu dox xeeroo ñi ëpp ci nii yaakaaruñu woon ne mën naa sotti ci diiru juróom-ñaari kon nag bu ko suñ borom dogal lii tey war nga sant yàlla bu baax kon nag la Sëriñ Tuubaa waxoon ne ku ma defal loo man ma defal loo mënut ku ma defal loo mënut ma defal la jomb kon nag sëriñ bi nee na faw mënuy sulaa ñàkk sant mënuy sulaa ñàkk gërëm kon nee na mi ngi lay sant bu baax ci turam ak ci turu mboolem njëbaru Serigne Touba gi ak ci turu mboolem yoon murid mu ngi yeesala cantam gii nag ci liggéey bu rëy bii nga xam ne defal nga ko waa réew mépp nga ko defal waaye defaral nga ko Touba defaral ko waa Touba Touba nag bu ñu ko wax Serigne Touba moo tax kon euh, Serigne Touba kenn mësu koo liggéey di ko rëccu ndax moo wax ne képp ku ma liggéeyal binaa yashkuran wa azim qibali wa xidmatal ayaali turan aqbali kulli te shtaxalo bi xidmati wa takfihim gadan aza ka sadmati waxoon na ne nanga ma defal képp ku ma liggéey suñ boon defal ko loo xam ne képp ku ma liggéeyal dana ko ci ñee bu faw kon waa wa du waa dëkk bi rek koy jariñoo waaye réew mépp la jariñ kon ubbi nga tey bunt bu rëy te gaaw ci suqali réew mi te Touba gi mu jëm Serigne Saliou Mbacke waxoon na ne yaakaaru ju tas ñun ñu ñëw ko Serigne Touba Serigne Touba nag dëkkam bi wàccuwaay bi mu am ci dénn ak démographie ak ci koom-koom ba tax ñu war fee def sànc yu toll nii li ci jëkk moo dina Touba dafa am wàccuwaay wu màgg ci Sénégal ak ci àdduna bi lu mat ay millions yu bari seen yaakaar nekk fi ndax seenu sëriñ moo fi dëkk at mu nekk ay millions di fa daje bàyyi ko fu ne ci àdduna si Touba nag nekk ci diggu Sénégal di xoolu Sénégal nekk motoru Sénégal kon ku fi indi yoon wi daanaka lëkkale nga Sénégal gépp muy penku bi ak sow bi ak gànnaar gi ak Saloum bokk na ci li yombal jokkoo gi ci réew yëpp muy dëkk boo xam ne dana indi lu bari ci koom-koom réew yi ndax ay gor yu nangoo liggéey te ñu yor leen ci jàmm ak jom ak ñeme coono di demal seen bopp di dunde seenu njaq nii leen ko Sëriñ Tuubaa diggale wa talabul xalaali fardun yentami li kulli muslimin xëy wax wahmi am na benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Hubayriyan wax na ne 1958 li nga xam ne moo ñor ci biir Sénégal ci réew mi ci wàlluk mbay 60 pour cent yi murid yi ñoo ko def nee na loolu nag day waral njàmbaar gi nga xam ne murid yi am nañ ko ba fii ne mooy njàmbaar gi nga xam ne am nañ ko ci ne bitim réew ak ñee seen ñee daan seen doole ci mboolem Sénégal yi lii lépp nag li ko ko may mooy nangu natt bu ko suñ borom dogaloon ci moom te neewoon na yàlla suñ borom de ba ma koy liggéey liggéeyal jombalu ko waaye ba may fay foo xalu ma kon nag payoog yàlla amut fenn fu mu yem wala lu doomu aadama mën a xalaat ci xeram lu dul na coobare suñu borom la kon bi Serigne Touba nekkee ci yéen Jolof ci loxoy tubaab yi commandant de cercle Goulouga dafa bind benn arrêté ci moom le 7 mars 1909 wax ne sëriñ bi mayatuñu la li la wër ci néeg dëkkuwaay bu mu weesu ñaar fukk nit ñi lay seetsi ci bis yi bu ñu weesu juróom fukk te dañu lay dañuy ñaan permi doon a ñëw bala ngaa wubbeeti benn daara ngir jàngale danga am autorisation bu jigee ci commanda bu Louga tey ci tey jii fii ci Touba lu ma ñaari million ñoo fi dëkk fii nu toll li fi nekk ci daara alxuraan mën na mille cent cinquante te bokkul ak école yi diine yi li fi nekk ci ay jumaa yu julli ay juma mën na téeméer ak ñaar ko li fi nekk ci jàkk ay téeméeri téeméer la mu jàngal nu wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa xasbuhu moo tax ci njaarim bis commandant de cercle dafa ñëw wax sëriñ bi ne ko ñun de dañoo am tey dangaa def tooñ bu rëy rëy ndax mboolem luñ ma luñ la ma sate ci nattu ay njort la woon waaye tey dangaa def loo xam ne yoon da ko tere ndax mooy ñii nga jële ay jaam mursali jën leen indi leen senegal sëriñ bi ne leen fa ma leen jënd de seenu tere indi euh, àggagu fa bi ma leen indee fii itam goreel leen a tax tubaab bi ne tekk ba ci àgg mu ne ko yow de nii nga def bu ko ñëpp defoon ak njaab jeex ci àdduna mun ne ko man lu may doy ay jaam ndax ko gor yi nangoo doon sa jaam looy doy jaam mu ne ko ñun de dañoo amul jaaxle ndax juróomi dërëm yi ñuy laaj ci impôt di ci sonal nit ñi leen ci teg ay daan yooyu nanguñ koo jox yow nga laaj la ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett ñu lay jëli ak di la wër te mënuñ làgg si la ko jox Serigne Touba ne leen li ko wóotale de mooy yéen li ngeen di laaj li ngeen leen di laaj laaju leen leen ko ngir yàlla joxu leen joxuñ leen ngir yàlla yéen deful leen ko ci yàlla man nag li leen di laaj laajuwa leen ko dama leen ko laaj ngir yàlla eh, di leen ko defal ci yàlla looloo ko wóotale kon nag Serigne Touba. Eh, noonu moo noonu ko suñ borom defaloon dogale kon nag sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ci barke sëriñ Touba lii mu doon buntu xéewal bu dul tëjooti ba faw ci yow président yow mi nga xam ne yaa ko indi fii ci dëkk bi di la xamal ni tam sag ci moom nee na am na tàmbali waaye amul fu mu yem ndax nee na yàlla suñ borom dalaa boole moom jëmb jëkk muy toog ci jaatu jitaayu sëriñ Touba yi na nga def ko kilifa def ko sëriñ def ko waajur jox ko ab cër boo xam ne dara mënu ca dal ko bi yàlla doo ko lee itam mu nekk fi sëriñ Tuubaa nee na nga yeesal loola feddli ko jàppaat ko yeesal sa taali bi ci moom lépp loo xam ne def digal na la ko itam amugu ci lenn loo xam ne defoo ko kon nag nee na sa digg moom cant gi am na fu mu tàmbalee waaye fu amu fu mu yom kon nag nee na mi ngi lay ñaanal ci barkeb sëriñ Tuubaa yàlla suñ moom jàppale la dimbale la ba mboolem somb yu rëy yi nga xam ne am nga ci réew yi yàlla kattan na la ba somb yooyu yëpp nga àggale ko ba tëj ci bëtam nee na moom ci boppam nag mi ngi lay sant ndax noonu la moo ko waxee ci làmmiñam ndax nee na ma li mu bëgg kat mooy ku ko ñaanam mu mottali ay yéenam kon nag faw ma ñaanal ko yàlla dimbale ko mottali ay yéenam nee na li mu koy jeexale rek moom amul loolu Serigne Touba Serigne Touba rek la yaakaar moom la am mooy léppam. nee na jël na sa jëmm ji nag dénk ko Serigne Touba kon bàyyi na la ak Serigne Touba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu li sadinatan bikun lil janna min daari minan yaatal minna li sadinatan bikun lil janna min daari minan yaatal minna